jërë ngeen jëf mbokk yi comme niñ leen ko waxee woon ba tey rek ñoo ngi fii ci eh, jumaay Touba ji ci espace bi nga xam ne fi la Serigne Amsatou Mbacke moom Serigne Chouaïbou bu nekk ak mboolem ëllu xaside yi di jëfe li nga xam ne mooy ndigal nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha jox na ko ko eh, bu ngeen gisee nag ni ngi toog ak koo xam ne dootuñu leen ko sax présenté muy Serigne Amsatou Diakhaté moom it di kenn ci njabootuk Serigne bi waaye di kenn ci njabootuk ëllu xasida waaye di kenn tamit ci taalibe yi nga xam ne dañoo def seen yitte jëpp ci jëfe ndigalul Serigne bi saa su ko soxla woo eh, ne bobu ba neugani ci fajar ba neugani ñi nga and ak serigne bi ci wataay ak lepp ci li nga xamne moy ndigalal serigne bi ci njangum khassida ñu gis ne serigne am bi euh, suba xasse jot rek fajar gi rek ñew na àndikoo mbokki bi yépp ana ban jangat nga am ci taxaway bobu nga xamne sunu kilife yi ñu ngi koy am ci jëfe ndigal ak euh, jan jan euh, jan jangat nga am tay ci bis bi ndax damay wax ne bis bi tay kep ku fi tabbi rek ta ta amu yëg-yëg am nga am nga am nga lo ci ak ak ak ak it euh, ban tawfiix moo nekk ci defal sa serigne limu bëgg. bisimilah ak Cheikh Abdou Lahad ñoy ni nuyu di siyaare ñëpp di ñaan Cheikh Mouhamadul muntaha suñu borom yagal ko fi lol dama ànd ko wér di ñaanal mbolem njabootu Sëriñ Tuubaa yépp di la jaajeufal bu baax serigne mohammed ci liggéey bu reey bi nga xamni yeen def di tassare mbindum serigne bi ak liggéeyub serigne bi bis bi bisu la bo xamne ne bis bu la. bis bu rëy la itam bisub tawféex la bisub xéewal la bisub jàmm la bisub dottiku ay tawféex la ci sëriñ Serigne waa ndax ndigal li nga xam ne moom la sëriñ bi joxe la ko ci Serigne Amsatou Mbacké moom Serigne Souhaïbou ñu di ko def mu nekk loo xam ne yaakaar naa daaw ci heure bi defoon nañ ko te daanaka jeexit ja ci ay xéewal ba tey jeexagut ba fi ma waxee yow nii xéewal yooyu ñu ngi koy xéewloo. serigne bi euh di Cheikh Mouhamadul muntaha day ko xamne fi ay beutam yegg ñun suñu beut yeggu fi fi yëg yegam suñu tuba yegg suñu yëg-yëg suñu tuba aggu fi pesefam ci suñu tuba yegg suñu pëstéef ci suñu tuba yeggu xam-xam yooyu nak mu dajale ci suñu tuba moy waral Len nak moy xam waxto moy xam heure ba moy xam la cay suñu texe ak la nga xamne moy suñu dimbal te ginaaw suñu borom dafay wàcce woon yonent bi sallallahu Alaihi Wasallam. ci yërmaande minde fi kep suñu tuba wutuko ko kon seigne touba yermane mbindéef fi rek la fi meuna a nekke keneen ku fi tew itam teewul fi seigne touba itam yermane mbindéef fi rek moy taxaju yermane a fi nak li bokk na ci li sowe mbollem ko xamne dafa bëgg lu baax te mënu a jot bis la bo xamne ne ji ci misal buñ don buñ don dir des na ci jamando yu bare bare bare bare bare ku ci rebb soyo ndax da nga japp tayit da nga da nga da nga am xewal tayit neexit wi ciy nekk mooy bu doon da nga koo xalaat def ko dong lu baax la waaye rawatina na nga am ci ndigal te laa tafaloo sayen bi xëyri isni fal isnu sattu fi xubalu saani jëfe ndigalul sa kilifa dafa nekk loo xam ne ngànnaay la ci doomu adama bi rawatina ci ko ko xam rawatina nag kilifa gu toll ne Sëñ Tuubaa nga jëfe ndigalam ba adduna sosoo ba léegi mësee su sa gis koo xam ne dafa jëfe ndigal lor fekk ko ca ba Sëñ Tuubaa amee ba léegi kenn mësee su sa gis ku jëfe ndigalul Sëriñ bu noppé lor fekk ko ci wala mu dess ginnaw kon jëfe ndigalul Sëriñ Tuubaa moom lay mel ne lu kawé kawé la ci ci ci ki nga xamné dafa joxé bopam da ginnaw bi nga joxé sa bop da né ne tu nafsi joxé sa bop bayilo ci dara kon buñ la yolomalee rek nga nek ci sa yitte bu la sëñ bi soxla kon day melni momu moomatoo sa bop lol nak ci lañu ñu ci suñu am sutu mom suñu soxee bu ci yokku gog nga xamné ne ci tawféex ak bànneexu jëfe ndigalul rawatina nag jaar ko ci xasida yi suñ Muntaxa it xam gu mu xam Sëñ Amsatu ak ni muy doxee ci xasida yi ak liggéey bu rëy bi nga xam def na ko ci xasida yi ci ndaw ñi ak mag ñi dañuy wax ndaw ñi waaye ndaw ñi ak mag ñi Sëñ Amsatu na ci liggéey bu rëy rëy liggéey boobu rek moom la ko suñ borom cërale jaaree ko ci suñ Tuubaa jaar ko ci Cheikh Mamadou Muntaxa ba mu fab liggéey bi ko ci loxoom muy la kawe kawe loo xam ne fu waaye toll ak fu mën a nekk yëg nga liggéey bi mën nga ko defee fa nga nekk waaye dangaa ñëw ba fii ànd ko ak moom loolu nag cërub Sëñ Amsatu la boo xam ne dañ koy ñaanal suñu borom dëgëral ko te yàggal ko ba liggéey bi nga xam ne mi ngi ko ciy def ndax euh, saa su ko sëñ bi joxee ndigal day mel ne day jëfe ndigal li waaye da koy woddi ak ak ak neex maanaam jëfe gi mi jëfe ndigal li da koy neex ba da ciy def lu man ba def ci lu mënut wala sax lu jàpp ne mënu ko mu mu mu jim ko suñ suñ tubaa fekk ko ci loolu nag lu rëy rëy la loo xam ne buñ ko xamee rek buñ ko xamee rek maam njariñ li day daal di dotti ko fa saasa du du xaar ndax suñ tubaa moom waq di xawaa ijël la si na daamoo jooju mu wax fi xidmat yi te loolu day mel ne fi xidmat yi waxab lahum maaraamoo maanaam lépp loo bëgg ci liggéey suñ tubaa la nekk lépp looy xalaat liggéey suñ tubaa la nekk lépp looy munta ñàkk ci adduna ci liggéey suñ tubaa la nekk liggéey suñ tubaa boobu nag ku la ci woo dalaa dimbali kon buñ toogee ba yàgg sëriñ bi xam gum xam murid yi xam itam nosog mbindéef yi nekk nosog murid yi nekk gi nekk ci loxo Seex Mamadu Muntaxaa kon bu suñ Muntaxaa ni ñu koy jàppee mooy ko yor am xaram yëg ne dañ koo war a wëgg mu jox ko ndox mu naan mu yëg ne daa war a lekk mu di jox ko mu ak xont xont googu muy xontu xar mi ci di ko rafetal ak di ko suural day mel ne loolu it mooy dikkaat ci murid yi nos gi ñu nosu nosu mbindeef yi nosu mbinde euh, murid yi teg géem tege ci loxo si moom Muntaxa lii ab xont lañ ko jàppe boo xam ne ab xont bu mu ñuy xont la boo xam ne day mel ne kon bu ñemee ci ay loxo rek yaakaar naa li sëñ bëgg ci ñun dana ko am te loolu lu rëy rëy la loo xam ne yaakaar naa fiñ liñ fi jang ci ay xasida te tay dafa melni dañu boole ñetti fetalu ñetti ngimiñ la wala ñent ndax dañu mel boole xasida sikrullahi ak alquran alquran sikrullahi xasida ta bo jule alquran lepp nga ci ñett yoyo nga ci biir bo jule xasida ñett yoyo nga ci biir bo bo jule sikrullahi ñett yoyo nga ci biir day mel ne kon ñett ñett lañ boole muy juroom ñent ci benn bis kon day mel ne loolu lu tawfiix la ñu dako yi bisu altine bisu ku ne xamna li nga xam ne moom lay signifié ci yonent bi sallallahu alayhi wa kon day mel ne buñ ko defee ci ëttub Sëñ Tuubaa nga xam ne Sëñ Tuubaa nguur rek day mel ne daanaka lépp luñ doon daanaka taataan daal moo ci des taataan ak xol bu set bu sell waaye lépp nag li si am sut di wax rek mooy ñaanale ko Cheikh Mouhamadoul Mountakha mu yàgg fi te wér araf wuñ fi jàng bernde buñ fi def noy guñ fi noy yaakaar joo xam ne am nañ ko ci ci liggéey bii lépp ñu ngi ñaan ci barkeb Sëriñ Tuubaa suñu borom dott ko Seex Mamadu Muntaxa mu yàgg fi tawér yaakaar naa murid yëpp loolu moo nekk ci seeni xol loolu daal mooy mooy lu njëkk li ñu njëkk a wax ci ci ci laaj bi nga ñu euh, ñëw rek nga xam ne moo di liggéey bi fii bokk na ci bërëb yi nga xamante ni bërëb yi ci gën solo euh, muy njàngum euh, xasida gis nañ bañ julee fajar lañ ko door ñu bëggoon a xam nan lañ ko nosee ci njàngu rajas bi ci njangum durus mi ak ci njangum yëkëti mi mu kuréel nan lañ ko nosé fi nga xamné lepp dana ci yoon xam nga loolu mom lu yomb la ci ci ci ci ci ci kiñ jox liggéey bi muy si sut ndax si sut da xeyul xey rek ñu jox ko lii euh, daanaka dundam gépp mom ci xasida la kenn ku nekk nak ci la ci ca yëngu ci lay organiser wo organisation bobu nga mom la def nak mo waral lu mel lu daw la gisoko ko lu ta xam nga ne wàccaayu wa mo gënon a yaatu waccayu ren wi ta waccayu ren wi gis nga ko ne mel biñ dikkee fiñu wara war ak ñi wara jang ak ñi wara tok ak fiñu ñu ak ñi ngi koy ak yépp dara wu ci kon day mel ne nosin woowu am na ñoo xam ne ñoom la ko siñ bi tegoon seen loxo njiital euh cheikh siñ cheikh mi nga xam moy jëwrinam te min liggéey bi lol xam ko ta sawar ci suñ doon defal suñ borom defal ko ci tawfiq ak déggoo ci mbolam ñi nga xam ne la ko ku mel ne cheikh jang ak ñi nga xam ñom yor liggéey bi nosin woowu fi ne ñi wara rajas heure bi ñu wara rajas xam nañ ko ñi nga xam ne dañoo wara jang jangum kurel heure bi ñu wara jang xam nañ ko tayit señ bi bi wul euh len dul durus bernde durus bernde durus bernde rek la su ko defé nak fi ne ni kurel yi wara jang xolon nañ ko njëkk ñi tambali nga xam ne kenn ku nek xam nañ heure bi mu wara jang heure bi mu wara a kurel bi ci wara top nga xam ne day mel sax digënté bi ëpp ëpp différence du fi am bu kurel bi noppé rek amna na kurel bu nek ci wet bo xamne def nañ ko ñaari kuréel nga xam ne bu bii daaneel rek ba day daal di day daaj nga xam ne boo boo teewlu da jàpp ne benn kuréel bay jàng ba léegi loolu lépp ci nosin wi la waaye loolu lépp boo xam ne dafa jiitu woon bis bi moo tax ñu ñu dencoon ko te loolu lépp nag mi ngi aju ci liggéeyam si ngam sutu mi nga xam ne xasida yi ñor ko ñor moo waral mu tànn ay nit yoo xam ne da leen a tàggat ci lu mel noonu bañ def ko seen liggéey nga xam ne lu mel nii bu saa su ñëwee bu sëñ bi joxee ndigal fu mu ko mën a joxee ba ci poroxaan fu mu a doon day mel ne day doon loo xam ne du doon lu ndax fekk na boobu am na équipe boo xam ne loolu rek mooy seen liggéey moo tax daanaka nekkul loo xam ne lu ñu ndax fi kër yi yi wër kër Sëriñ Tuubaa yi yi wër jumaa ji fenn fu nekk kuréel yi jox leen jox leen seen i leen war a saytu ak a fekk lépp defar nañ nga xam ne amul benn bettel boo xam bu ciy am amul benn soox bu ci am te it bu heure bi a jàng ñëpp jàng muy muy muy buñ a ngay sàkk alxuraan ñi ci jumaa ji ñi ngi biir jumaa ji ñi ji noonu la ko sëñ nga xam ne ni ko ni ma ko waxee woon léegi rek juróom-ñeent la la sëriñ bi boole juróom-ñeenti yëf ndax sikkar alxuraan a ngi ci xasida ci waaye xasida alxuraan a ngi ci sikkar a ngi ci waaye alxuraan tam sikkar a ngi ci xasida a ngi ci loolu lépp nag mooy seen ndey mooy umul mooy mooy mooy mooy alxuraan mooy ndey sikkar mooy ndey xasida kon day mel ni bu sëñ bi boolee sikkurulahi ak jàng alxuraan ak xasida kon day mel ne lu daaw la am na leen lu mu a mar loo xam ne yàlla yàlla yàlla nañu suñ Tuubaa defal tawfeex ba sëñ ba niñ ko sëñ bi bëggee ñu defee ko noonu ba liñ ci sëñ bi bëggal ñu am ko ñun yaakaar naa kon loolu jar na aw nosin nosin woowu nag day mel ne amul benn jafe-jafe bu ci war a am ndax fekk na gaa eh, ñi nga xam ne ñoom la sëñ bi jox liggéey bi saytu nañ ko saytu wiin woo xam ne dara du leen ci bett te dara du ci sooxe te ni ko sëñ bi bëggee la koy amee incha allah